ñëpp ñu sax ci di ko liggéeyal waqdi hawaaij allasina daamu fi xidmati wahab lahum maaraamu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh